xool. Euh, xam nga benn jën doraat. ñu teg fa benn doraat. Mhm. plat bi def nii lépp soos la. soosu soosu soosu kii la. mais booba lu mu wax la. mais grand yi. non booba lu non ça veut dire. yéen vous avez une relation avec le sang. non non non mais mais parce que ça veut dire ça veut dire booba fu mu ko tegee. non non non ah, mais yàlla xam na ni yàlla xam na ni non yàlla xam na ni kaay ma wala. foo ko tegee gars yi mënuñu ko. xam nga xam nga émission bi. c'est la vérité. c'est pour ñëpp la sauf ñun. Hmm. ñun ñii ñëpp ku ci toog sa kër di reer soos bi dañ koy def ci benn assiette mu tege ne ngay copp par benn. le la la mais laisse-moi laisse ah, gars yi ah, bàyyi leen ma ah, leen ma ma bàyyi gars yi doole ma bi ngeen di wax man nii laa def teglu bàyyi leen ma rek même si. ah mais non non non parce que des fois tu dis des choses yi nga waaw mais dama ne la tey jii dama ne la dama ne ñun ñii toog ci plateau bi je pèse mes mots. ku ci toog sa kër di reer. soble bi accessoire la. <laughs> oui. dama ne encore une fois. Thierno Bocoum mii buy reer ah côté bi day tegu nii. non xoola accessoire la. dootul c' est pas l' élément l' élément fondamental. il raison dans la famille sénégalaise seen famille sénégalaise bi gën a ndaw. élément fondamental bi. c' est l'huile qui déborde ngay ngay soos muy dem ci sa loxo yi ak soos bi loolu mooy feesal biir bi mais du yàpp bi parce que yàpp. doo ko déjà en terme de hiérarchie ci biir kër rek benn doom bu yàpp libre la wala genn wàll libre ay caas la du sax yàpp mais paa bi moo koy lekk. <laughs> non dëgg la man je me rappelle ñun bu man bu ma nekkee xale. moom mooy dem liggéey non mais man man man judduwuma ci judduwuma ci si si naataange. oui judduwuma fekk paa Elimane Dour. di di di truc sant yàlla tey ba ma mën a joxal sama doom loo xam ne man sama papa peut-être bëggoon na ko mais mënu ko def mais je me rappelle ñun bi ñu nekkee xale bu paa reeree ba pare dañuy ji daw ci ci ci reeru paa bi parce que affaire yaa nga fa sople saa nga fi nga jël pain bi dagg ci mais dëgg la non loolu moom c'était pas démocratique. waaw mais non non xam nga su fekkee ni su waxee benn. dëgg la damay affaire dafay dafay daf may dëgg damay wax ni ci ci mbirum ci mbirum boo ko xóotalee dëggantaan. njëriñu njëriñu dara. Mm. lan lay jëriñ waa ji mës na ñëw fii toog kii mës na ñëw jàkkaarloo. Mm. sëñ Samba Ndiaye mii di wax. Mm. le problème mooy que tey jii nii waruñu sukkandiku ne benn problème am na Daaru Xuddoos mu mu war a répercuter wu ci kii pour pour man état moo war a fexe ba sople si doy ci mim réew. xam nga mën nañu juger ay jugement de valeur par rapport ak par rapport ak euh, commerçant yi su fekkee ni yow da nga am ay ay nit ñoo xam ne peut-être c'est même pas les producteurs c'est les revendeurs les commerçants. c'est les revendeurs c'est mais xam nga lan la. fait de sorte que marché bi am soble su doy. ba nga xam ne le prix dafay stable bu ñu commencé attaquer mbirum prix. et man der musuma la ñaan benn suggestion. Hmm. il faut ñu def fi benn jàkkaarloo boo xam dañuy attaquer prix. mais pris au sens large. Mmh. pourquoi Dakar est une ville. Cher. aussi chère. mooy oui, c'est bërki démb dama dem pas bërki démb sa temps yële passé am naa benn xarit bu ma doon giseel fii euh, Corniche Almadi après ma ne xoolal restaurant yi nekk ci Corniche Almadi ña fa am yëpp à la limite franc symbolique lañ ko amee wala ñu jox leen oh benn kii ñu koy occupé te foofu normalement c'est le sénégalais moo fa daan dem di sangu géej nga ñëw tabax jël fa sa ñaari bant sa ñaari kii mbaar def fa lakk jën mais tu tu manges là-bas. on te t'amène la la la kii ñu indi la addition bi <laughs> nga ne mais. dañu nekk mais dëkk bu nekk. da ngay dem dëkk tubaab bi mais pourquoi on dit hôtel benn étoile deux étoiles trois étoiles quatre restaurant lii ak lii mais on est dans un pays boo xam ne te aujourd'hui buuba dafay xëy. loolu dafay répercuté wu si yëpp day jëw xëy tabax benn affaire am si lui-même mooy décider exactement. et sans tenir compte de de la bourse du sénégalais. mooy que y' a benn tranche euh, kii bi société bi bu mag boo xam ne da toute leur vie ils ne vont jamais avoir accès à quelque chose tu vois ñu ngi wax waxu kii da ngay jël benn bouteille boisson boo xam ne mi ngi dugg jot deux cent cinquante ci bu boutique bi nga dugg fenn ñu jaay ko dix mille wala cinq mille mais état fu mu ne c'est-à-dire que suñu dëkk yi ak li ñuy consommer dafa war a méngoo ak li nga xam ne moom la parce que ça permet à tout un chacun d'avoir accès à ça mm-hmm. et loolu moom mooy indi lii yëpp donc pour man soble warul toog fii ñu ko naan soble manqué naag warul warul manqué sénégalais yi ñun ñëpp ay sénégalais lañ amul sénégalais boo xam ne commerçant la yor na benn habitude beneen sénégalais sénégalais yëpp ñoo yem ñëpp benn lañ commerçant beeg banquier beeg ñëpp c'est pas que commerçant bi se moom mooy sénégalais typique boo xam ne moom mooy def yëpp jubadi li problème bi mooy que boo identifier problème mu gars yi fexeel ba nga xam ne le produit mu nekk fii ba doy doy sëkk ba nit ñi du ñu am boo spéculer ñu bàyyi la fi alors réaction de Aly Ndiaye moom mooy chargé comme